di leen uh, ndokkeel ci bés bu ni mel ndax bés la bu nit yàlla ñoo fi daje ay boromi xam-xam ak jaamukati yàlla ak ay arifuun ñoo daje ci bés bile ah maa ngi nuyu sama mag ju tedd di sama sëriñ Hajja Roqiya bokk nañ nekk ci daara ji waaye moo ñu rawoon ndax maa ngi fàttali sax bi may jàng bayaan moom moo abaloon benn téere boo xam ne bayaan la waaye ma nga bindoon ca kaw inna bi ma yasurni allah arahu danasan wala mumazzaqan li annahu min alwalidil karim kon maa ngi koy nuyu di ko ndokkeel ci bés bi ak ci béréb bi moom bi nekk kenn ci kàngam doom yi nga xam ne sahibul fayda ya moo leen meññe waaye moo leen yar Mawlana Cheikh Ibrahim الإخوة العلماء والوجهاء أصحاب الفيض التجانية الشيوخ والأساتذة الكرام والحاضرون لهذا اللقاء السنوي لقاء الخير وتأخي في الله سكان هذه المدينة والمدن المجاورة لها وجميع الناس من الرجال والنساء نحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu may ñu njub ak tawfiq tawfiq mooy fexe ba sa làmmiñ dëppoo ak sa xel ci li ngay wax waaye itam mu fay nu ci jataay bi ak ci teewaay bii mu fay ñu ci aw yi woo xam ne bu bari la ndax nekkul jataay bu simple jataayu ay ulama ay fuqaha ay arifuun jataayu xam-xam ak diine jataay bu ñu tuddee ay kàngam boobu jataayu yiw la pour que jataay bi mel na mu war a mel walla mu baaxee na mu xee wala mu ëpp ko ñooñu yëpp ak ñun ñu ngi leen di ñaanal an yaktuba allahu lana wa lahum xayran fi saxifati amalina yowma laa yanfa maal wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim wa an yaxfira lana dunuba wa yastura lana aluyuba wa yamnaxana saxat aljism wa saxat aliman billahi taala innahu yasirun ala allah wa ma dalika ala allahi bi aziz alixwat wal axwat alxaadirun li hada alliqa ah euh, la ma bëgg wax rek moo di nii oustaz Babacar wax na ko léegi mu di al oustazul alim waaye nekk al ibnul baar doom ju baax mooy koo xam ne la ay baayam ak i maamam nekkoon ci diine ñu nekk ca la ñu nekkoon ca xam-xam ñu nekk ca moo tax li mu wax léegi bi ne ma waxal rijaalun xawla mawlana cheikh ma ne bàyyil ma wax alaamun ndax ay jigéen a ngi ci kon duwul ne ay góor rek ñoo nekkoon xawla cheikh ñoo xam ne am na luñ mel ba warees ko wax wax gi nag njariñ njëriñu ngi ci ndax ñi koy déglu bu ñu déggee ay melokaan ay sóobuwaay ay jaarukaay yoo xam ne yu baax la ku ci ne mën ngaa seet ndax yaa ngi jaar ci looloom déet boo ci jaaree nga sant yàlla dëgër boo ci jaarut nga wëññee ko jëm si ci loola kon wax gi dana am njëriñ bu fekkee ne yonent bi alayhi yàlla di wax ne dama lay nettali min ambai rusul maanu sabitu bi fuaadak ña ngi lay nettaleel xibaaru ay yonente yu fi jaaroon ndax loolu mën nañ cee jaar ba dëgëral sa imaan ki yàlla yónni buñ ko waxee loolu kon ñun ñu yemaay ñi lee sikka nekkut ci ne bu ñu waxalee jaaruwaayu jigéen ñu tedd ñooñu ak góor ñu baax ñooñu daan ci jëlee njëriñ ci jéem a topp lu ni mel kon xawla Cheikh Ibrahim radiyallahu an لأن فيهم نساء وقفنا موقف الرجال أو فوق بعض الرجال في العلم والعمل والمعرفة وفي التعليم والإرشاد مثل هذه السيدة العالمة والمدرسة والمربية الماهرة تبارك الله أحسن الخالقين wax naa ne du góor ñi rek waaye jigéen ñaa nga ca am na ay jigéen yoo xam ne seen mawqif seen taxawaay ci wër Mawlana Cheikh Ibrahim seen tànk ci géeju xam-xamu Mawlana Cheikh Ibrahim ak nañ ko sottee ci yeneen doomu julit ñooño jigéen ñooño itam warees naa wax ci ñoom ndax jigéen ju ni melut nga lu ni mel ndax ay jigéen la yoo xam ne ña nga ca kaw ñenn góor ña ca xam-xam ci liggéeyal yàlla ci maarifa ci jàngale orientation ak jubbanti nit ñi comme sama jigéen bu baax bi yaraatekat bi fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin yenn yàlla may ko wér te dëgëral ko guddal fanam muy Adja Roqiya bint Mawlana Cheikh Ibrahim moom day tudd naa ko waaye dama gis ci ay nusuus yu dëgër ne Alfayda FM ne am na ngërëmal way juróom Cheikh Ibrahim ci wàllu xam-xama tax ak cofeel gu mu amoon ci waajuram woowule ak ni mu bëggee woon xam-xam ak ni mu ci sonnee loola ma taxoon xam naa ni amoon na ngërëmam wax ji ma ne am na woon na ngërëmam nag ay nu soos la ay texte la yoo xam ne yu ñu bari jàng la Sayd Roqiya ñun ñu siwale aw turam ci yeta baay mu ngi bokk ci jigéen ñi nga xam ne àndoon nañ ak waroon nañ ak na Cheikh Ibrahim nampoon nañ ci meewu xam-xam ak maarifaam te moom nag sayida ay gëtam daal ak fu mu daan xool daana xool ci gune yi jigéen yi nga xam ne aajo nañ ku leen defar ak ku leen xamal ba ñu ba ndax xamoon na ne jigéen ñooñu ëllëg ñooy nekk yaayu mas gi nar a ñëw muy génération de futur jàng na jàngale na bind na taalif na sax ay téere ci loolu dana am lu ma ci tudd rek taalif yi bu paree buñ ko muule rek oustaz Babacar daf ma koy jox tanbihul bintil muslim muslima fi diini wal xaya téere boo xam ne li mu tudd mooy yee gune gu jigéen gu gëm yàlla gi ci wàllu diineem ak ni muy dundee ci àddina am na mor am na solo téere boobu nga xam ne ki na ko jottali wax nañu ne téere bi de boo ko seetloon boole na moom Seydi Roqiya lu mel ni fukki bunt ak ñaar walla fukki yeete ak ñaar yoo xam ne yu yittee la lool hadi Cheikha Roqiya wax naa ni làq na ngërëmal Mawlana Cheikh Ibrahim ba booy seet sax ci bind yi Mawlana Cheikh defal na ko benn taqriz bu am solo ñaanal na ko ca yàlla nangul ko la muy def ak jëfam Mawlana Cheikh ñaanal na ko ca ak texe ak texe muy honneur yi képp koo xam ne mu ngi góor góorgóorlu di liggéey ngir jéem a amal téere boobu moo xam góor la walla jigéen ila axiri hadi cheikha qad taallamat min Mawlana Ibrahim wa baadaha anshaat madrasataha jàng na ci Mawlana Cheikh waaye jàngale na sos na it daara yu daara joo xam ne yàgg na ko sax def ndax wax naa la ne ñoo bokkoon daara moo ñu rawoon waaye daana daanan def nag bu ñu amee lu ñu jaaxal wala lu ñu lënt ñu ñëw ci moom mu xam ne nag la ko war rek moo di ne samp daara jàngukaay depuis 1958 booba la ko samp nag ci ndigalal ki nga xam ne mooy way juróom wu tedd woowu Cheikh Ibrahim daara ja mu nga tuddoon mu ko tuddee woon madrasatu najaax loolu am na arfaan bu baax a baax ndax najaax mooy ki doon kër kër yi di at am lu muy wut mu jot ca kon loolu la ko tuddee woon haadihi cheikha kaana waaliduha yusamiha taratan bil bintil saaliha wa shaab rabiha xam nga nu ko bàyyi daan tuddee ah, gune gu jigéen gu yiw gi walla boog doom ji tonowu nga xam ne am na bénéfice bu bari ci li muy def boo seetee ci muraasala yi ak bataaxel yi ko Mawlana Cheikh daan bind yenn jamono du ma matal yëpp waaye am na foo xam ne Mawlana Cheikh mu ngi ko ci tuddee كنت أريد أن أقول أن شيخ مريم كان والدها يسميها تارة بالبنت الصالحة أو الشاب الرابحة وتارة يسميها wax ji ma wax sama mag sama oustaz Ibrahima Mahmoud Diop noonu la ma ko waxee yaxal nañ ko sax oustaz Mahmoud Ibrahima Mahmoud nee na fataatul xay yi tur boo ko seetoon mu ngi tollook décoration bu ñu décoré nit ci bu tudd ordre de mérite wisaamul istihqaq waxoon naa ca gannaaw ne di joxoñ di junjanee a sama mag bu jigéen jile ajaroqiya bokk na ci ay taalifam ak ay bindam waxoon naa tanbih al bintul waaye waxoon naa it ne taysir fahmi diin li awlaadi l ifriqiyin wa min banaat wa baniin loolu itam xam nga am na solo ajaraqiya am na ñu ko seedal xam-xam ak ak yiw ak àgg ci boromam ak xam ko lu bari ci ay ulama man de su ma nekkul numéro un it bokk naa ci xanaa topp ci lii way juróom wu tedd waxoon rek ci moom Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop it wax ko seedal ko ko ba tey oustaz Mouhamadul Kabir wul du ma ca xaw yi itam Ibrahima Salah ca may dogori seedal na ko loolu yonent bi waxoon na al umma laa tajtami ala dalala mbooloo kalimatul umma ñeen fukki piri la am ci luga waaye am na ca buy firi mbooloo rek kon nag ñu bari du ñu dajee ci wax ju duhut noonu pël yaa ngi koy léeb sapp rimata fukk duñ fen mukk loolu moo taxoon Ibou Diouf boole ko ca woyam wa bi faydu bi feeñee bu juf ne tukulor yaa ngi tukulor yaa ngi naan sapporimata njàngu yonte barham séeréer si ma ngi naan ndigil ndigiloo loolu mooy dëgg la dëgg la al umma la tajtami ala dalala tudd naa ay ulama ma njëkkee sama bopp teg ko ci Mawlana Cheikh Ibrahim mi ko seedal loolu Cheikh Ibrahim Diop Mahmoud Hamdul Kabir wal du xurma Ibrahim Salah Mbaye de Gori waa ji bañ ne diw am na xam-xam dañ ne mbaa boroom xam-xam yaa ko wax diw dee ku baax la mu ne ndax ànd ngeen am tukki kon dafa am ay màndarga yoo xam ne bu feeñee ci nit war nañoo mën a wax ni ku am xam-xam la ci loolu ci xam-xamu zahir ak yeneen yii la waaye Mawlana Cheikh Ibrahim jox na koy ijaaza yoo xam ne yu xóot la li ma lay wax ne alima la sax ne faqih la boo seetee am na benn téere Cheikh Khalil boo xam ne bi ko ko bàyyi jox baat yam ko seedal ca kaw téere Khalil ba la ko bind muy tekki ne kon feq ma it feq ba itam sàgganewu ko woon te loolu mu nga nekkoon bi xat bi xat yeddi xadimil xadra mawlana sidi ali sise ibn alxasan radiallahu anhuma hadi sayda roqiya tabarakallahu ahsanul xaaliqin waxtu wu jamono daan jafe xam nga jamono yu bari jaar nañ ci mu jafe alfayda fm yéen gune yi fekke wala ngeen ngeen ñëw fekkaa dina neex man na jamono joo xam ne Medina dong yàgg yàgg nañoo dundee néew di njëkkante new xam gu neex ak gu neexut waaye yéen loolu ngeen ñëw rek fekk mu neex ndax ñaanu Mawlana Cheikh Ibrahim bi muy wax naan yàlla maa ngi ñaan tukki naa maa ngi ci àll bi jamono xat na waaye maa ngi ñaan Madina gële ah nga def fa ay xéewal yoo xam ne yu bari la ah Seydi Roqiya bu jamono daan xat bu bindaal baayam ne ko jamono xat na bàyyi da daan tontu naan ko fab shiri bi naylil muraadi kama tabghina yaa sayyidatal awlaadi barakallahu fiiki gis nga faqaraat yooyu ni mu amee solo bégal ne li nga bëgg daa ko am daa ci jot ni ko bëggee nag yow mi nga xam ne yaay sangu doom yi xale yi maa ngi ñaan yàlla mu jox la barke loolu la daan wax kon nag duhur rek ay rijaal ñoo nekk xawla cheikh waaye fihim nisa mithla hadi sayida ak itam nag ay bokkam yu jigéen mën naa ci tudda cheikh mariam xadimatul quran moom itam ma ngi bokk ci nissa hawla cheikh ñoom yëpp ñu topp ci seen i mag mu di fatimata zahra ak xadija ak umu kaltoom ak ñeneen ak ñeneen mbokk yi ñu bokk yàlla dama noon rek dinaa ci wax tuuti waaye su may wax alam hawla cheikh ibrahim radiallahu anhu mënuma ko tudd lu mooy ma wax ci dara ci tey xadaratu Tayba Ñangeen bi nga xam ne tey seeni sët ñu ngi nii toog waaye taxul ma sàggane yeneen xadaraat yi dama bëgg wax rek ne azamatu rajul yura fi azamati atbaa'i aw ashaabi aw alladina axaatu bi nit pour nga xam fa mu toll darajaam ak màggaayam fa mu tollu dangay ngay seet ñi ànd ak moom ñan la ngay seet ñi ko toppoon ñan la xaada Cheikh Ibrahim waroon na ko àndoon na ak moom ñu weex ñi ñu ngi ne ci sama gannaaw ak ñu ñuul ñi ci ay ulama wu arifuuna la damay wax léegi oustaz ñaan bi ñuy ñëw ne maa ngi lire a ah, sirat muqaddami cheikh fi Mauritania waaye lam ara alama billahi taala min Mahamad al Mashri Mahamad al Mashri boo gisee ay bindam wallahi boo xamul ci yàlla lu xóot sax doo xam li muy wax ana achadu annahu min kibaari al arifin te loolu du maa ko ko seedeel nga xam ne mooy Cheikh Abdoulaye bi nga xam ne moom ma mahabba la amoon guyaatu yaatu na ko di na ko ko gis naa li mu bind ci moom Cheikh Abdallah mooy bàyyiwu mu Muhammad suñu mbokk yi di bind téere yi ak di chara tafsiru sëriñ bi ci arab di ko génne gis naa fu mu ko bind naan ko man de dama doon ñaan nga may ma sedd ma ci sa mahabba bi moom mashri nee na Diédhioubi nang ma sédd ci sa mahabba kem sama cër comme li ma lay sédd may it ci maarifa bi ngay wax nga xam ne ku nekk am na xususiya waaye ñoom ñëpp nag min kibaaril aarifin kon loolu ñu weex ñii di ay shérif di ay jàngkat di boromi xam-xam moom bu fekkoon ne amul benn karaama bu ñëw ci sëriñ bi itam loolu rek doy na karaama ndax xam nga ni ñooñu ak seen xam-xam du ñu nekk fu dara nekkul duñ topp lu jarut a topp ndax dañoo xam-xammee door a ñëw kon hada cheikh ibrahim qad axaata bihi wa sahibahu kullun min albiidi wa suud wa min alulama alarifin alajilla kulluhum qabilu wa actarafu bi annahu xaamilu alfayda altijaniya allati waada biha cheikhu tijani bi annaha satasaaru fi ashaabihi ñooñu nga xam ne waroon nañ ko te ma tudd tuuti ci suñu mbokku arab yi alfayda fm ari waaye waxoon naa ne buñ ne diw baax na wala am na xam-xam dañ ne ndax ay bokkam ñoo ko wax moom ay bokkam ñoo ko njëkk a topp ay bokkam yu jàng lu toll ni li mu jàng am na sax ñu yaakaaroon ne jàng nañ lu ëpp li mu jàng ku mel ni suñu bàyyi la ju ma Zeynabu dafa tëjoog moom ne ko Ibra su fekkee li ngay woote di ko wax ci téere bi la ne tëjal maa la raw wala ji Abdoulaye kum jur maa ko raw fekkee li ngay wax nag nekkut ci téere bi waxal ma jégg waaye ba mu waxee mu dégg ba mu génnee rek dafa ne huwa cheikhu fi jamii maratibi maratib yëpp ñuy tuddee ab sëriñ Ibrahima nekk na ko ma tudde ci bokkam yi ko toppoon Aboubacar al Musanna jàngal na ma lu bari muy ñu naan ko sëriñ Bay wax nañ ko Musanna parce que Aboubacar ëwwal dafa am muy El Hadj Babacar bokk na ci kàngam yooyu ko waroon doomi soxna yooyu Cheikh Omar Touré al faqihul mashhur bokk na ci sëñ Ousmane Ndiaye al alimul ajib ku kéem kéem taane la woon te nag la mu jàng ak la mu fi dund bu fekkoon da koy natt ci dund ñeneen ña bariwut ndax bàyyi ñuy wax ne tënk na ko ci jara waabil baatu waabil rek la dund maanaam moyen de quarante ndax boo xisaabee waabil laam nga ne ñett fukk la nga daldi ne bu laam nekkee ñett fukk waaw nekk juróom benn alif nekk benn baa nekk ñaar 39 loolu rek la dund te nekkoon nag ma ngi bokk ci ñi àndoon ak na Cheikh Ibrahim bokk na ci ñu ko daan bindal yenn jamono yi nga tudde ci alhaji Mouhamed Zeyni bi mu wax léegi al adibu shair nga tudde ci magam ja Baye Mahmoud Niass nga xam ne moom da ko féetale woon ci téere feq yi bay Mahmoud faqi la woon da daan jàngale xalil ak lawal ak saanieg yooyu faqi la woon ñun fekk nañ ko gis nañ ko bëggoon alquran nag ci la nekk rek nag dañ ko daan ree ndax baram njàng sama mag jooju foofu la nekkoon bu xëyee day waqaf suboox bi suy waqaf nag ku ko noyu mu ne la kuy jàng kenn du ko noyu waaye bu saxaar gi ne pep mu ne may na la départ dëgg njàng bi kooku mooy shaqiqam kooku rek la am ci ku mbokkal ndey ak bàyyi ku góor te mu dund a saamoon na doom yu bari waaye dunduñu kooku rek ci dund kooku itam ah, ma ci wax tuuti rek ay xaraayib yoo xam ne gune yi duñ ko xam soxna am su ndaw si muy yaayu Mahmoud Mahmoud Khady dafa xëy rek dem ca raay ba ne day xaar saxaar gi dër ko mu dee ndax ma fii ci sëy bi te naruta doom ñu dem wax ko bàyyi na Khady day xaru mu ne indi leen ma ko buñ ko indee bàyyi ko lan la mu ne maa xam ne ah, sëñ Mahmoud nar naa dem te man du ma am doom ci nekk gi ma nekk fii ma ne kon sama dund bi dee ko gën may xaar saxaar gi rek mu rey ma bàyyi na ko demal toog sëñ Mahmoud lu mu gaaw gaaw a génne àddina dana la bàyyeen ñaari doom yu góor mooy Modou Mahmoud ak Baye Tuuti loolu la ko waxoon naka noonu maa ngi tudd Thierno Assane Deme ah ñi ma ko gën a xam bariwul nag déedéet ndax këram laa dëkkoon toll na jamono bu mu wax nga xam ne kër gi ñetti góor rek fi ne man ak moom ak kelli ma tabax benn néeg bu ndaw jokka ak néegam mu am ñaari néeg gablin seng kon xam naa ko bu baax ndax moo ma yore woon ndax lañ ma ko joxoon may dem di jàngi fii ak fële léegi la dem ci Baye Amadou bu ñu soxlaa naaxu ñu jàng fiq ñu dem ci Baye Cissé Cheikh Ibrahima daal di yoreel boppam luxa yu mag yi ay maqamaat aki i balaxa ak ak tafsirul quran moo ko ma a boppam danaa tudd léegi eh, Seydi El Hadji ma Abdou Niang mooy maam yi xale yi ma wër fii kooku dinaa ci taxaw tuuti nag ndax keroog eh, bañ ma yóbboo tey ba ñangeen dañ ne ma naa wax ci Amady Boucar waaye dama tënkoon rek ne doy na ci ngëneeli Amady Boucar ñu ne moo jur ma Abdou Niang loolu rek doy na mbokk yi góor yi mbokk yi jigéen yi waxoon naa ne màggug nit dana feeñ ci màgg ñi mu àndal hada cheikh alaaji ma abdu Mawlana Cheikh Ibrahim bëggoon na ko lool waaye moom it bëggoon na ko lool bëggoon na saahibul fayda tijaniya xaaji ma abdu bokk na ci ak aqtaabul arifin yoo xam ne jéegu bu ne dox nañ ko ak ci bépp kattan ak farlu pour fayda tijaniya ba jëm ci kanam Cheikh alaaji ma radiallahu anhu moom mi ñu xam ci xam-xamam ak maarifam billahi bu xóot ak bëgg gi mu bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim moom it ma ngi bokk ci min jumlati rijal alladina sahibu Cheikh Ibrahim wa xadamu lahu wa xadamu lahu xata radiya anhum bokk na ci ñaanta nag Mawlana Cheikh Ibrahim di ko liggéeyal ba mu gërëm leen wax nañu sax ni Alaaji Ma Abdu ma ngi njëkk a jàngee ci baayam Ahmadou Boucar ci Saloum wax naa ne Saloum keroog bu ma demee ba waxoon naa leen Alfayda FM xeet yi fa dëkk waaye ñoom ñu ngi bokk ci xeet wi ñuy wax signi xam nga Saloum dafa am signi ak bangaaj signi euh, signi yi yaatu wuñu woon li ko waral mooy su ngeen bëggee day ñu julli ñoo ngi doon julli waaw waaye waaye ñu julli waaye yëmu fa nag wëndeelu na ci ay gox yu bari pour xam ci biir Saloum ak yeneen i béréb loolu ay sa tam ñu ngi fi toog ñoom ñëpp nañu man ci loolu ba ñoom bind nañ ko sax doon nañu wax ne waxtu woo xamee ne waxtu woo xamee ne bëggoon naa laxas pour dolli ji xam-xam da daan dajale ay waa këram ba ñuy ñëw mu a ah man kat maa ngi génnaat di wutiwaat xam-xam ku mën a xaar mu xaar ku mënul xaar yewi naa ko ndax xaw ma kañ lay dellusi si loolu xeet la ci bëgg xam-xam xam bi kon da ko sàkku sonn na ci wut na ko waaye xam na ko de boo seetee ay wayam ak i bindam rek daf lay wóor ne ki xam na jàng na itam lu bari boole na ay xam-xam yu bari ak i fànn yoo xam ne yu limu la rafetal na ay déggiin ba mu joon a nekk génn géej ci géeju xam-xam yi ak maarifa tànqoon na itam ci tànqoon na bu baax ci xam-xam yi ñuy tuddee laduniya muy xam-xamu yàlla xam-xam la duniya mana ilmu la boo xam ne min la dun ilaa kenn du la ko jàngal yàlla lay neex mu indi ko ci nit yàlla xamaloon na ko ca loolu moo tax ñu wax ci moom bind ci moom ne moom ndey xanaa la daloon Moussa dal na ko ndax Moussa ba mu jógee Madian muy Cham bëgg a dellu si waat muy Égypte ci yoon wi ci saxaraawu Sina ci la séenoon ci wetu Tóor doj wa ci la séenoon leer ga anasa min janibi tuuri naaran mu ndax Moussa safara wam seenoon safara lam déet alquran indi ci ñetti wax dafa ànd ak soxnaam xam nga Moussa bi muy toll ci ñett fukki at firaw naa ko yar firaw na mi ko yar nag bokkul ak biñ ko yónnee firaw na ma mu dajal ndax firaw na ma ko yar di borom këru Asiyatu bintu Mazaahim ku ko bëggoon la ko amoon ci coom yërmande la ndax na ko jabar ji bëggee woon waaye comme Firawna boobu amuloon doom Moussa taxaw mel ni ku ñu adopté mu nekk doomu Firawna di sol col ga di taxawee taxawaay ba ya xew-xew ca la ko jot jot ko ba mu génn nag min ha xaifan ba mu demee ba àgg Madyan muy Cham fekk yàllaa ko bëgg mu dem ba ca Shuaybu di am ay ñetti fukki at te yàllaa ngi na ma ne bu amee ñeent fukki at dana ko yónni tax na ñu bari dañuy yaakaar ne am na ñu koy wax sax ne balaa ñoo yónni kenn mu am ñeenti fukki at loolu nag saxut saxul ci alquran saxul ci sunna yonent yàlla Isaa dafa judd rek yàlla yónni ko inni abdullah atanil kitab kon loolu la ak keneen ak keneen kon loola saxul maanaa dafa nekk xaalib li gën a bari rek Moussa ba ko Shuayb bu ne yaari gune yu jigéen ya ko fekkoon ca teen ba mu ànd ak ñoom wëggal leen ñuy ñibbi kenn ka ku mag ka seetlu ko lool safora la tudd kooko dellu ne baay ji daal ku baax moo ñu wëggal suñu gàtt yi ñaari gune yu jigéen ñi dañ doon sàmm mën nga cee déggee ne nekk jigéen dana liggéey même ci bitim réew même ci sàmmi si nécessaire bu fekkee mënu la ñàkk mënu la ñàkk ndax seen baay ñaari jigéen lañ seen baay màgg na mënta sàmmi kon nag foog am keneen ku sàmmi moo taxoon jigéen ñi daan sàmmi di ànd ak sàmm yu góor yi ca àll ba loolu beneen euh, bunt la taxut maa jóg nag dama bëgg wax rek ne Moussa ba ko gorom ne ko danga may sàmmal juróom-ñetti at mooy can gi ak cher sàmmal ma juróom-ñetti at muy can gi ma door laa may jabar yéemu ca mu tegal ko ci ne boo ko matalee fukk nag ma xam ne goro bu baax nga rek loolu yëpp xikma bi mooy pour mu am 40 ans sàmmal ma juróom-ñetti at soo ko matalee fukk nag goro bu baax nga ndax nga am yéen fukki at te nag ah jafe lu ma mbir mi nag de sawaay ah sàmm fukki at ba pare nga ne jafewut can gi cher na wala kulli xaal booba ba juróom-ñettee di matee ci lañ ko may soxna mu nekk ak moom di sàmmaat ñaari at nekk ak soxna sa ba fukk at yi mu am ñeen fukki at yàlla yónni ko tooy bu woo ci néeba jël wenn yet jox ne ko yet wi bul tàggoog moom Alfayda daa ci gis kéemaan sa borom loolu la wax ndax ñaari mursal duñ bokk jamono man sama jamono ngi wéy maa ngi jeex kon yaay doon na loolu jëlal yet wi bul tàggoog moom mu jël yet wa ne ko maa ngi ñibbi nag Égypte la ma lañ ma wax naa fa dem mu ne waaw sa borom nee na demal Afrique fa lañ lay yónni mu gàdd yet ba jiital soxna sa ndekke dafa ëmboon ba mu ñëwee ba ci digg Sahara bi soxna si am doom kii man ku góor day mënul ci réewle dara te léer bi nag juddu na Sahara baa ngi sedd ak ndend la alquran indi ñetti riwaaye benn bi mu ne ko Moussa ne ko toogal am na luy leer fale aman na ma am fa gilit ak safara indi ko ngeen jaaru ndax da ngeen liw benn riwaaye bi ne walla ma fekk ca loolay leer am njub bay ne boobu la aw ajid ala naari hudan bàyyi ne booba nag la duwul rek pour jaaru waaye am njub la doon wuti mooy yegg ci boromam tarbiya mooy yar nit ci yàlla dafa munte ñàkk du yonent du nabi du mursal du waliyu amul kenn kuy àgg ci borom bi ndef bu fekkee ne taabiru àgg boobu nangu ma baal ngeen ma ko ndax nangu ngeen kom déet ndax àgg sax moom amut ndax doo xam fi ngay àgg tasilu lu haysu la wusul la wasila wala mawsul lu mooy ñu yar la booba ñu ngi koy yar kii ne ko kon ma fekk am njub ca safara sax kii ne ko mooy ndigilit ndax ngeen jaaru ala kulli haal Musaa ngay dem rek mu duggee ci xur mu ngi dégg pay ba nga ko naan eey Moussa summil sa dàll yi ak si nga xadratul qudsi pay bu sell doo fi dugg ki dàll Jalaalayni Xashiya Saawi ulamaaw tafsir ulamaaw zahir yëpp daal dina dàll dàll ya deru médd la woon Cheikh Ibrahima ne ñu déet wallahi su fekkoon ne loola la xaw yëpp juboo nañ ci ne deru médd xalil daggan nañu jëfandikoo ko indu bi xa buñ ko sebejee ci nem-neb wala ci laxunde dagat naa jëfandikoo kon kat du loola Mawlana naa Ibrahima ne ñëw lan la mu ne bi ko bi ko euh, pay bi ne ko faqla na alayka summil sa ñaari dàll su fekkoon ne ay dàll rek la bu ne faqla def na nialaka rek sa dàll yi lu tax mu ni ko na alayka waxut nialaka ku ne xam ne dàll ñaar lay doon lu tax mu ne na alayka Mawlana Cheikh Ibrahima ne fàttel jabar ja fàtte doom ja mooy ñaari dàll ya faqla na alayka innaka bil waajal muqaddas ndax xam nga jabar ji kii la doom ji kiiraay la feeg yaa leen bàyyi xel doo ak si ci yàlla kon nag summil ñaari dàll yi fàttel jabar ji ak doom ji ndax ak si ci fi nga jëm radiallahu anhu moo dégg wa ala kulli xaal Moussa loolooy ana samin jaanibi tóori naaran comme ni ko ñoom oustaz Babacar ña ngi bindee ne ji ma abdou itam anasa min jaanibi tóori naaran te fekk waxtu woowu Maolana Cheikh Ibrahim defagut benn communiqué wala benn ilaan wala jéem a feeñ ne fayda tijaani ya agsi na ci moom waxagu ko waaye waxoon naa ne yàlla jox na ko xam-xam la du fan lam alaji ma abdu xamee ne faydu baa ngi jege ak feeñam ñëw na ma nga nee di xotti kiiraaya di ñëw ba muy bind sëriñ bi naan ko bazaxa shamsu alayna wan jalaazul mudalal wajaba shukru alayna kulla yawmin wa layal jant bi fenk na ci nun leer gaa ñëw lëndëm dem war nañoo sant yàlla daal di ne leerug faydu bi kat mu ngi melxat yi alaaji ma abdu seen commune ba it ba bind bàyyi nan ko faydu baa ngi ñëw leer gaa ngi ñëw mbir maa ngi ñëw waaye ida ajlasaka allahu ala min baril qutbaniya wa duciita bi wa wasfika fa ana taalibun mutaaridun lil maqaami lazi yalika qurban ilayk ila axiri xaaj ma Abdou bind na bàyyi lettre boobu faydu des na juróom benneet muy door a feeñ mu ne Mawlana Cheikh Ibrahim buñ demee ba yàlla toog loola ci sa tooguwaay nga nekk ci gàngunaayu xutbaniyatul uzma boo demee ba sa tur woowu ñu wooyee la ko boo demee ba melokaan woowu ñu melal la ko yëgal ne ab taalibee ngi nii muy ma Abdou mu ngi nii di xaaraan di gaarlu maqaama bi topp ci sa bos boobu boobu la bëgg ndax bëgg laa jege moo tax wax na ca xasitam bi xasidaam ba ne uvrita fardan doyita abdan mooy fardu boobu muy mu muy junj ci kaw lii nag mbokk yi Mawlana Cheikh Alhaji Ma Abdou gisoon na kon feeñ ak faydu bi gisoon na itam ni su boobaa ànd ak Mawlana Cheikh Ibrahim su boobaa xam lu ca moom loola su boobaa naan ci ndoxam faydu boobu loolo mooy cëram bu gën a lëw bi mu gën a fonk moo tax mu wax ko ci xasidaam ne man de barhama xazzi barhaamu sahmi fa huwa hasbi wa qad kafaani melal na ko ci ay melokaan ci mate xutbaaniyatu gi nee na am na ay kuy yu bari yoo xam ne li ñu am ci xam-xam ak mbooloo soo leen xamaloon yàlla su boobaa ñu bokk ci kuy yu mag yi kon nag kuy yooyu yow rek yaa leen di feeñal mu ne muy lil fuxuul yi mutil wusool nusxa Alfayda FM. baa ngi def muctil wusool dafa jum. duhun muctil wusool rek. da usool waaye wusool la wax. ndax al usool la tuuta. walakin al wusool yuuta. kon nag mu lil fuxuul muctil wusool. mubdi shuun xadmul quran ila axiri. ramzul wujud saadu saud waafil wuud rabiu tani. hada cheikh mu abdu ku bëggoon cheikh Ibrahima la. mbëggeel goo xam ne gu xóot la waaye Cheikh Ibrahima itam bëggoon na ko lool daana ko wàccee wàccuwaay bu yëkkatiku ci kanam ñëpp xam nga dem na sax ba tuddee ko ne mooy sama xalifa ma ne loolu taarix yuidu nafsu Maodo na Cheikh Cheikh uh, Tidiane Ibn Ahmad Tidiane radiyallahu anhu waxoon na ne Ali Harazim Barada mooy xalifaam ti Ali Harazim moo ko njëkk a génn àddina loole moo dellusiwaat bàyyi ne alaaji ma abdu mooy sama xalifa te moo koy njëkk génn àddina kon la demoon dafa dellu si rek te loolo moom waxal na ko boppam nee na Cheikhu Tidiane ba ma woddee bañ ma woddee jëmmam ja ma nekk xutbul farid qad tabadda xutbul faridu araahu laabisan suurati loola dafay tekki ne kon bàyyi waxoon na ne mooy xalifaam ndax ba mu tukkee bàyyi ma abdu yaram wi neexut ba mu naan tukki mi day neex na waaye siwa xalifati ma abdu fil azaba rabbi ya latifu zal marad xayru muridin lii wa xayru saaxibin wa xayru sihrin wa huwa xayru taalibin yàlla in kunta qad axadtahu farhamhu faxfir lahu ya rabbi wal tukrimhu wa alliman awlaadahu alculuuma wa adihim warzuqhum fuhuma wa atihim sir al imaam al xaatimi umarun najli ajal wa xaadimi mu dem ba yàgg mu ne raaytu fi lmanaami xibbi yantaqil lil barzaqi al aala wa sirru ma nuqil gis nga bi eh, alaji Mabdi di wax ni buñ la toogloo ci gàngaanaay googu ñu tuddee la tudd woowu am na kuy xaran ci sa wet jox ko ndax mu topp ci yow topp na ci ba bàyyi ne ko yow yaay sama xalifa ba ñaanal ko wax wax jooju mu tukki yaram wa naqari gannaawam waaye alaji Mabdu radiyallahu feeñal na ci saahibal fayda tijaani lu bari lu nëbbu woon loo xam ne nekkoon ñun duñ ko gis wala duñ ko xam digal na ko moom Mawlana Cheikh Ibrahim ci ulumul laduni yi ko yàlla joxoon ak maarifam rabbaniya ak maqamam bu kowee ci qurbaanil uzma la mu doonoon ci a Cheikhu Tidiane bay tànq ci géeju xam yàlla gi ba nangul ko ko ñëpp nangul ko fayda tijaaniya ak maarifa ku réer nangu woon na ku xam nangu woon na ku weex nangu na ko ku ñuul nangu woon na ko moo taxoon alaaji ma abdu daan ko tuddee bàyyi daan tuddee alaaji ma abdu bil aarifi billah bi oppam bi méttee sax bindoon na ko benn lettre ne wax leen na Alioune Cissé sama xadimul xadra nee na bindal alaji ma abdou daal di ne al aarif billah ma abdou kaza wa kaza kaza ila axiri xaaj ma itam daana tuddee Cheikh Ibrahim bil maktuumi sani al maktuumul awal ma mawlana Cheikh Tidiane kon al maktuumu sani mooy moom ndax moo ko doon ne ci loola ñoo ngeeg document yi ak la Sukayri ji bindoon di wax ne ko yow Mawlana Cheikh Ibrahim doon na nga Cheikhu Tidiane loolu dikkal na la te kookaa gënoon a jege Mawlana Cheikh di muqaddamam nekk ku mag xam lool amoon na sax ci seen murasala fu muy wax naan yow Cheikh moom Sukayri Dia naan yow Cheikhu Tidiane lu tax nga jox maqaama yii yëpp Ibrahima te maa la gën a jege maa ngi fi loolu sax am na ci seen binde kon nag ba ko Mawlana Xadimul Xadra Alioune Cissé bindee ne ko Alaaji Ma Abdou kat dem na ci barzaqul dem na ci yërmande yàlla mu ne waqaali tirsi min ahli sirri wa naaibi fi masjidi wa amri mooy Alioune Cissé lam ma yónnee nag madmunuhu tabshir ak tashwiq fi dimnihi tawajjuun xaqiq lettre bi ma jox daal la ca nekk ci biir ay métit la yu métti waaye gis nga aarifoona yi rek loolu li muy naqari naqari ñu ne ko sa xalifa bi génn na àddina mu ne waaye terewul am na benn waarid bu ñëw ci man léegi aktubu waaridan lahu huna ata man qaala maa qiila lahu fa ma ata waarit bi dañ ma ko wax kuñ wax dara nga wax ko waree su laay yedd moo di ne inna ladina xadamu ni naalu muraadahum saadatan wa maalu te ma abdu ci la bokk ñépp ñi ma liggéeyal lépp liñ bëggoon buy alal ci àddina buy texe ci àllaaxira dinañ ko am mu mel ni taxaddi lay def mel ni Cheikh Ibrahima dafa samp ndëndëm ne man aasha shahada iyaanan wa man maata yafuz wa daaka fi kulli zaman ku dund ci àddina ba ca kanam da nga jàkkaarloog li ma wax ne inna alladina xadamuuni naalu muraadahum saadatan wa maalu man acha chahada iyaanan wa man maata yafuz wa daaka nag fii kulli zaman duur rek jamono ji ma nekk ak yéen su wéyee itam kon liggéeyal ko dafa wéyut moo tax ngeen continuer di ko ñi àndoon ak moom di continuer di ko liggéeyal ba tey dem na ba naan waman yuhibuni waman yarani fi jannati alxuldi bila buhtaan is annani xalifatu tijaan mawhibatan min ahmad alfayda fm adinaan ba mu ko waxee benn waay ne waaw moom kii lu muy wax ni yonent bi saa eh, sallam ma ngi nii ñoom Abu Jahl di ko gis ba bëccëg tey war a dem safara moom mu naan man de ku ma bëgg rek wala nga gis ma da nga dem aljanna Mawlana Cheikh ne ñoom Abu Jahl gisuñu woon Seydina Muhammad rasulullah jirimu Abu taalib lañ doon gis ñoom jirimu Abu Talib moo tax gisuñu ko bàyyi ne man chakka fi ida fa ara wa asma min ay su yara alfata wa yasma ku sikk ci li may wax ne ñi ma liggéeyal yépp danañu am texe àddina ak alaxira na nga xam ne fa may gisee seen gis àggu fa fa may déggee seeni dégg àggu fa mu teg ca nag ne alima zalika fulaan wa fulaan kaza fulaan maa samiakale yan diw xam na ko diw xam na ko diw xam na ko gaw gaañi di koy énuméré naan Serigne bay xam na loolu Aliou xam na loolu diw xam na ma Abdou xam na loolu diwit xam na ko kon Mawlana Cheikh Ibrahim wax naa ci gannaaw ne daana tuddee alhaji ma abdou bil arif mu ne ma ne waaye daana ko waxit wax ju rëy kullu tilmisin lii fa huwa tilmisun laka in kuntu xaadiran la siyama isa xibtu alhaji ma abdou bàyyi ne na ko sa sama taalibe yëpp say taalibe lañ su ma teewee wax du gën a rëy loolu mbokki jullit yi lu tuuti laa tënkoon ci rijal rijalu wa nisa alladina kaanu xawla cheikh ibrahim radiallahu anhum jamian mu nekk nag moom alaaji ma abdu ñi ci gënoon a rëy ab cër ñi ci gën a rëy ab cër amul benn taalibe bu bàyyi wax li mu ko wax xayru muridin lii taalibe moo ma sa am yaa ci gën ku ma sa ànd ak man yaa ko gën ku ma sa gorowanteeg man yaa ko gën loola boobu déclaration fort na kon loolu lu tuuti la ci Mawlana alxaaji ma abdu ibnu ahmadou bukaar waaye moom itam xaaj ma abdu ku mënoon téereb yàlla bi la waaye taawam itam xaaj omar radiallahu anhu moom itam ku mokkaloon téere bi ak mokkalam aku kaangam seedal na ko ko alaaji Abdoulaye mi nga xam ne mooy ku mokkalan alquran la muy premier xal deuxième xalifa bu Mawlana Cheikh Ibrahim moo ma ne Omar Roqi mi ku mokkal alquran la wax na ko daani dégg na ko xaas yi dégg na ko ku bari woon xam-xam la keroog ba mu génnee àddina alaaji Abdoulaye nee na lu nu jàng yëpp jàng na ko li nu xam yëpp xam waaye dina ngoo wax dara dina ngoo jiitu ci dara topp ci suñ gannaaw rek loolu yëpp ak baax la waaye xam nga ne bàyyam itam ku bëri woon lu mu xamoon la wayam yeeg bindam yi moo koy tegtale kon nag hadihi nubza min asaabi cheikh wa akabiri muridi min al ulamai wal asatisa wa saada al kiram radiallahu anhum jamian idan mbokk yi war na ma war na leen ñu roy ak topp ñu mel ni le ak seen i jeexit li jaado mooy ñu jaar ca seen yoon wa ñu sax ca yoonu saahibal fayda tijaniya comme ñoom nañu amee woon ragal yàlla nañ ko daan jaamoo nañu sóobu woon ci yàlla nañu doon jéemee àgg ci fi nga xam ne àgg nekku fa nañu daan toppee sunu Yonent bi sallallaahu alayhi li ko waral mooy àddina mi joxe na gannaaw du dellu si mukk sikk nekku ci dee mag ñu topp rek di gaaw lool foog mu jot ñu aljanna mooy kër ak ñi ragal yàlla mooy mujj ak ña xam yàlla dama daan wax naan kullu aarif waliyun wa taqi wa laysa kullu taqi aarif kon mooy al aarifuuna awliya wa an laysa lil insaani illa ma saa cheikh Mutawalli Sha'rawi wax na ci tafsiram ne aaya boobu yéefar yi lañ koy wax yéefar yi la yàlla lay wax ne wa an laysa lil insaan illa ma saa waaye ki gëm yàlla kay dana am ci jëf ci pay loo xam ne jëfu ko mu yërmande yàlla yéefar yi nag la ñuy waxee yéen nag li ngeen def rek ngeen di am fii wa an laysa lil insaan illa ma saa ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu wattul ñu wattul ñu suñu mag bu jigéen bi Hajja Roqiyat moo guddal aw fanam ndax njëriñ la ñeel bindeef yi mu may ko ak dëgër ak wér ba mën a wéy ci yar ndaw yu góor yeeg jigéen ñi ak di leen xamal be mën a jaar yoonu ay baayam ak i maamam xaasatan mawlana Cheikh Ibrahim saahibul fayda Baye waxoon na ne bu ma waxee ne mooy saahibul fayda dafa am tegtal du maa ko wax moom moo waxoon ne mooy saahibul fayda borom xam yi door ko ko nangul عنها محمد أرسله إله ففاض مني سره فلا أحد يقصدني ما عرف الله الصمد سواء الصبيان والنسوان سواء الصعلوك وسلطان kon nag kalimatu laa ilaha illallah xaqiqam ak muhammadu rasulullah xaqiqatu baat yooyu ci la faydu bi bëbbee ci man mu di ab secret bu jógee ci yàlla ba tax na amul kenn ku may jublul mooy da nga xam yàlla nay gune nay mag nay góor nay jigéen nay buur nay baadoola wax na ba tey ne in al fayda afaadahu llahu alayya wa gayri min al awliya yaxtarifuuna min faydu bi yàlla ci man la ko bëbbal ku duut man nag ci wàllu yàlla yi ah, ci man ngay tibbee rek afaada alayya minhu xaqan wa innahu afaada li gayri min fuyuudi xibaayi wax na ba tey radiallahu anhu yonent bi saa sallam joyal na ay mbiram mbiri bindef yëpp nee ko ma ngi ci sa loxo fa wada ilayhi umural kaayinaat muy du ko tagg ba yàgg mu ne waqad qaala mamduux ruuxi bi anni mufawwidun umuuri ila barhama fa huwa almunafidu alfayda fm kon Mawlana Cheikh Ibrahim nee na yàlla jox na ko qutbaniya qutbu yëpp nag yu ndaw yi dañuy omatu ci suufam wa indahish al aqtaabu fi kulli mashhadin ra'awniya wanqaadu ilayya wa axlasu fa qaal walim la wa ayni al yawma aynu muhammadin sara sirruhu fi aykali wa ruwaay xutba yi bu ñuy tëb dafi sa taxaatake fecc ka am bànneex ci masaayit bu nekk ñoom ñëpp buñ ma gisee dañu omatu ci sama gannaaw te sellal ko lu tax mu ne yéemu wut ndax sama jëmm ji moo di jëmm yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne loolu moo taxoon mu ne ba mu génnee ci zaatul aliyati la ci génn nekk xàqal muhammadiya la ci génn nekk ahmadiya la ci génn nekk qutbaniyatu su ma noo di min xadratil qudsiya ahmada faxruj